asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 6 janvier 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la l'observateur la tirbine wala record wala sax Leewtoo TV fu nekk daal tey ay xibaar xëy na fa bu dee yëglekaay bi nga xam ne nag moom moo di sunu làmb la moom ke mu xëy seqal waxtaan dalal ko mooy ki nga xam ne moo di Eumeu seen ancien roi des arènes borom taay si nga Eumeu nag mu nga wàcc solo mbaxanaam akub simisam di tuus waaye yëglekaay ba nag seq ak moom ay wax ëmma nag moom la mu xëy di wax moom diggante booy ñang rakk ja lay wax ak Balla Gaye numéro 2 ëmma daal ne na boobu combat moom lu war a mën a nekk la warta mën a ñàkk moom daal daa am ne Balla na jël kii nga xam ne moo di booy ñang leneen lu mu fi def defut lees xam wala mu wax lees xam loolu la ëmma seen xëy tey di ko wax ne na daal te itam bu keroogee moom mu ngay ñaanal rakkam booy ñang mu daan Balla Gaye numéro 2 jël bu réy réy réy te ne na moom bu keroogee lépp lu combat ba laaj ak loo jàpp na ne su ko defee booy ñang am ndang nee na bu keroogee moom man ëma seen dama koy def ndax daa jàpp ne su keroogee moom ki nga xam ne nii daal moo di booy ñang moom daan lay def te nee na moom ëma dana ca xar tànku tubayam ba ab jël Boy Niang am ko ca kaw gi nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 am na yeneen combat yoo xam ne tamit ñëw na ca muy Tapha ak Lac de Guiers numéro ñëw na ca ak ki nga xam ne nii moo di Bombardier jàpp na ne ñooñu tamit daal ay adversaire am lañu moom mi nga xam ne moo di Eumeu Sène loolu daal la xëye tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci yëglikaay bi gis ko ci yëglikaay yu baree baree baree bari mooy Baye Mandione ma doon bëre xoyantaan ca Gambia Baye Mandione nag waa Gambi daal ba ñu toogee ba seetlu ba seetantal ñoom ñoo yore lambi gambi daal lañu ñu xamal Baye Mandione mooy ne ko aj nañ la à vie loolu mooy li nga xam ne nii mooy li am Baye na gis nañ ko ca sunu làmb gis ko fa nga xam ne nii moom moo di fi nga xam ne nii moo di l'observateur ak la tribune Baye Mandione nag nee na daal li leer ba leer day ne na aj à moom ne na moom mooy mbër mi nga xam ne nii daal mu ngi door a amee ci moom loolu daal la ko waa Gàmbi def mu mel ni kii daal kon ma Mandione moom waa Gàmbi aj nañ ko à vie waaye keneen koo xam ne nii wala leneen loo xam ne nii tamit yëglikaay bi ñëw na ci mu di jàkkaarloo bu war a am ci diggante Siteu ak Papa Sow yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw ci nee ñoom ñaar day kañ la ñuy jëkk a jàkkaarloo le 26 janvier fa nga xam ne mooy ci arène nationale loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu ko wax mu mel ni ki nag keneen koo xam ne nii moom xëy na indi lu bees teq ci làmb ji muy ay combat yoo xam ne amateurs yi soxla woon nañ ko moo di Assane Ndiaye borom Bawol production Assane Ndiaye nag que ñu xëy indil daal moo di mbay guy gi ma ngeen xam ak ki nga xam ne nii moom moo di Mame Balla Mame Balla nga xam ne nag mooy mu mag ma combat ba daal Assane Ndiaye ak Baol production décroché nañ ko mu mel ni ki nag kon tey jii daal la seen jàkkaarloo bu njëkk di am fa nga xam ne mooy ca presse café waaye yemu ca de ak ka nga xam ne nii moo di bébé jën tamit am na adversaire boo xam ne nii wutal na ko ko waaye beneen combat boo xam ne tamit taxaw na mooy ki nga xam ne moo di booy Niang bu Géejawaay nekk ca école de lutte Balla gay ak ki nga xam ne moom moo di doomu Jalaw boobu combat itam daal yëglikaay yi ñu ngi ñuy xamal ne li leer ba leer daal boobu combat moom taxaw dal dina koy def continuer dem fa nga xam ne nag mooy ca record record moom ke mu xëy séqal waxtaan mooy ki nga xam ne nii day moom moo di Modou Xarañ loo Modou nag roi des arènes ba moom mu ngay ci combat bi nga xam ne nii taxaw na dox ci digganteem ak ki nga xam ne moo di Ama Balde Modou daal nee am na loo xam ne moom mu ngi koy ñaawlu ci waa kër Ama Balde maanaam bañ leen di jox xaalis ba nañu ko jëlee Modou Lo nee na loolu moom dafa ñaaw a ñaaw ba yegg ci lool te daa jàpp ne sax ñoom ñooñu ay ngaaka lañu wala ñu jëf-jëfi ngaaka lii daal la Modou loo jàppe waa Pikine ak na nga xam ne noonu la ñu jëlee li nga xam ne moo de xaalis ba waaye Modou Lo daal kon tey xëy na ngardaajoo yëglikaay bi nga xam ne nii moo di record seq ak waxtaan wu yaatoo yaatu ki nga xam ne nii moom moo di abu nduur moodu daal loolu la xëy tey wax ko waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay wax muy li nga xam ne moo di lambi simple ji mu mel ni ki nag lambi simple ji moom soo bëggee dëgg-dëgg daal yëglikaay bi mu ngi ñuy xam ne daal ca arène nationale day des na fa teg 10 millions le 2 février ka koy def nag du kenn ku dul ki nga xam ne moo di musaa Gueye waaye leneen loo xam ne amoon na ci weekend bi di ay tournoi bu dee fa nga xam ne nag moom mooy ca Passy moom Doudou Sané lañ fa tegoon moo ko jël waaye fi nga xam ne mooy ca adresse war tamit caaka fay mu mel ni moom itam moo fa teg tànk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 suba la suba de. waaw ah. si ballon d'or africain. ngi lay delloo ziar Ndeye Coumba Fall di nuyu sénégalais yi ñuy suivre yëpp wala boog bépp doomu aadama bu ñuy suivre ak foo mën a ne. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ñu ko waxee rek waaw di leen ñaanal jàmm di ko saako si ñoom waaw comme suba la suba yàlla nañu fi yàlla bàyyi ba suba ñu fekkete tal waaw comme lu ma waxoon laay waxaat rek Sadio Mané moom mérité na sax lu ëpp ballon d'or waaw parce que xam moo tax tey nit ki yàlla mën na la dimbali nga yor lu ne gàññ te doo ko def fi ko war a def moom yàlla def na li muy li mu doon def muy li muy def muy métier muy football bi yàlla def na jàmm man na ko yaa ngi dégg beneen bi des mooy ah, li nga xam ne nii tey mooy la muy am ci wërsëg mu ngi koy bokk ak ay mbokkam di ko bokk ak sénégalais yi parce que la muy def ci dëkkam wane dëkkam di ko def ci réew mi yaakaar naa kooku moom bu ñu amul lépp ballon su ñun dañ ko koy jox man ñu jox ko ballon d'or rek ñu bañ ko koy jox laa yemale man li ma xam daal mooy moom macha allah daal ne yàlla na ko yàlla fal cat. li nga xam aussi Mahrez ak ak Salah yëpp nee na ñoom duñu teew si suba. waaw loolu ñoom la rek ñoom la ah. ñu seenu teew ak sunu ñàkk teew noonu man moom amul lu ma ciy concerné man moom xam nga ku ma concerné Sadio Mané mais ni Mahrez ni Salah non non non ça ma di no ni ni ni ni chaud ni froid chaud ni froid waaw yooyu moom newuma ci man maa ngi ca Mané Mané ja waaw kon boog suba kon boog yaa ngi sa teeru ja ba ah, ah waaw bu dee dañuy ñëw Sénégal waaw no bu bien sûr parce que loolu si mérité na ko parce que ballon d'or benn ñaar yoon yi mu fi dugg yëpp kenn moo ko amoon mooy El Hadj moom ñu koy ndokkeel parce que def na lu ñu ci équipe nationale tey bu ko Sadio naree ñetteel yàlla na ko jig te yeneen ballon d'or ak yeneen trophée topp ci lañ koy ñaanal ah amin Babacar ñoo nag si sunu laam sunu laam dafa xëy na dala ki nga xam ne mooy Eumeu Sène Eumeu Sène daal dafa xëy sànni daal ay ay kàddu jëmale ki nga xam ne mooy Balla Gaye nee na Balla combat Balla ak Boy Niang dafa a taxaw te nee bis bu taxawee moom euh, Boy Niang lay lay jàppale te nee na sax loolu combat lay doon nee na nag euh, Tapha ki nga xam ne mooy Lac de Guiers ak Bombardier ay adversaire am lañu Babacar waaw olof Ndiaye dafay faral di wax ne tëbal fekk na soccet jatu jàttu ñu xam lan mooy soccet balaa ñu naan naaw leen wala tëb leen fekk na soccet moom mu nga jatu na moom booy laal muy dem ça veut dire que loolu li ma ci jublu mooy ama Sène su combat Boy Niang ak Balla taxawee ndax Boy Niang lay jàppale loolu bu ko waxee moom Eumeu xam nañ ne mooy am su ko waxul xam nañ ne mooy am parce que yaakaar naa lu mu wax lu mu laax fet li ci Boy Niang que ne rakkam la yaa ngi dégg Boy Niang it lu mu wax wax ne Eumeu seen sama grand la kon defe naa seen diggante rafet na yal na leen ko yàmm yàlla sàmmal ñoom ñëpp ñoom mbëri dëkk Pikine yëpp wala fépp fu waaye nekk te am diggante yal na ko yàlla sàmm jàpp na ne combat effectivement combat mais ci kaw lépp dafa aju war ci kaw kàddoog Balla Gaye numéro 2 parce que moom moomu mooy ki ne ci kaw mooy ki war a tàllale loxo kon moom su combat bi am moom lay doon suy ñàkk amit ci moom lay dépendre mais bu dee ci côté Boy Niang la moom pare moom xam naa ne def na ko moom tey ku ko ne combat baa ngi nii day jël parce loolu moom bokk na si li koy gën a yëkkati yóbbu ko ci kaw a kaw a kaw yaa ngi dégg ëmma itam loolu defe naa mu wax mooy mooy li war a am ay adversaire am ci làmb moom Tapha Tine la Bombardier ak Lac de Guiers numéro 2 amateurs yi nag yaakaar naa bi ma faral di dégg mu dàqal leen ñu koy faral di tudd mooy Eumeu seen ak Tapha Tine waaw boobu moom amateurs bëgg nañ ko trop trop trop. te combat jànk sax na la Babacar. ok euh, Babacar nag nu ñëw si mbirum euh, euh, Baye Mandione bi demoon bëre ji Gambie ak xoyantaan te journaux yëpp moom la ñu bind sunu lamb record observateur tribune ñoom ñëpp ñëw nañu si fédération gambienne de lutte boobu nañ suspend nañu ki nga xam ne mooy Baye Mandione à vie maanaam daal amatul droit takk ngeem bëre foofu nga xam ne moom mooy Gambie Baye Mandione nag comme la ñuy waxee tontu de forox nee na moom moo la ñu ko suspendre à vie boobu. waaw loolu day li li li solo te solo daal mooy que ni dañuy nuyu mbokku Gambien yi parce que comme wax rek. Sénégal ak Gambie nañu xam ne que benn réew la parce que li tax mooy nañu fexe lépp rafet parce que tey boo demee Gambie da ngay mel ni yaa ngi biir Sénégal. wax ji ngay dégg sant yi ngay gis même nit ñi ngay gis kon yaakaar naa diggante boobu xëy na tubaab bay ñëw kay def la ko neex waaye mennum réew la kon yàlla na fa jàmm sax sax fii sax ci àddina bi yépp tey nag ñu suspendre ko à vie waaw loolu parce que xëy na que ni règlement ba ñu def dañoo jàpp ne xëy na da koo xëtt wàcc aw yoon règlement nag boo ko xëttee ci ñuy jàpp ne da nga xëtt aw yoon règlement ba am na lu mu prévoir ngir yow xëy na règlement ba kon dafa prévoir ne que moom nañ ko suspendre à vie yaa ngi ah nañ ko tamit xëy na suspendre suspense boobu boo xam ne xëy na du nekk avis parce que bàyyi ma njoon mbër la te itam a yokk ndax yaakaar naa bis bu toll noonu masul am Gàmbi ci làmb wala bu fa am itam noonu mu amoon médiatisation ak ni ci nit ñi doon waxee waxee wuñ noonu ci diggante xoyantaan ak Baye Mandione kon Baye Mandione am na mérite xoyantaan am na mérite mais promoteur bi di Jamaïcain am na mérite mais nag xëy na régal la wàcc moom Baye itam li ma koy xamal daal mooy na lépp rafet rek wax diggante Gambie ak Sénégal benn dëkk la. li ngay wax sax moom laay dëggal parce que am na promoteur bëggoon doxaat combat revanche fii Dakar xanaa kon combat boobu mujj am de suñu suspendé bàyyi ma yoon à vie. waaw non ca Gambie la mais bu dee ca Dakar moom ci Sénégal na am. Ah, xoyantaan xoyantaan maanaam Sénégal ak Gambie benn ñoom ñëpp ay sénégalais lañu ay Gambiens lañu parce xoyantaan doomu Saalum la yaa ngi dégg bàyyi ma ñoon doomu Ndakaaru la. comme li ma la wax sànq rek Gambie ak Sénégal benn dëkk la tubaab bee ko def naan pays anglophone ak pays francophone mais ñun ñoo bokk num réew mi waaw. Euh, sunu laam si mi ngi xamal ne seen premier jàkkaarloo le 26 janvier la incha allah diggante Papa Sow ak ki nga xam ne mooy Cité Baba. waa loolu de war na mën a ne parce que combat ba nag Pape Abdou Fall koy nuyu di ko ziar parce que combat bu neex a neex la le janvier yaakaar naa mooy journée wu euh, euh, Boubacar Niang diggante fils de Zallo ak ki nga xam ne nii. moom moo di caatu ngéwél Ama Events Boubacar Niang jiite ko kon defe naa drapeau boobu mu leen ko tuddee ñu war fa jàkkaarloo loolu xel nangu na ko yàlla nañ ko fekkete tal ko suñu jógee nag sunu laam dañuy dem fi nga xam ni mooy record record na dañoo xëy tey moom tamit dala ki nga xam ni mooy Modou Lo nen daal moom amatul yaakaar ne combat boobu combat boobu combat ak Ama Baldé c'est sérieusement hypothéqué maanaam daal am na si xel ñaar daal pour mu taxaw wax na tamit si combat bi nga euh, li nga xam ni ñoom la waa ka Ama Baldé def nee na lu toll ne xaalis bu toll noonu waruñu jël di ko di ko def si si mbuus ba àndim yëpp di ko gis keroog bu ñu jël avance fee si euh, si si avocat wu Luc Nicolaï Babacar. waaw Modou Dé bu bu xëyee wax tey ne que combat ak Ama Baldé c'est hypothéqué parce que maanaam mën na jàpp nag yàqu mën na ci am. ah su ko waxee lu jar bàyyi xel la ndax itam li tax mooy muudu moom nekk nit ko xam ne li muy wax bariwul waaw te itam xay na su waxee loolu ça veut que xel ñi dootuñu dal moom. wax dëgg yàlla ndax ku ne xam na digganteem ak lig te ku ne xam na liñ seq ci wàllum engagement ak yu mel noonu kon tamit ah mais nag du tere ñun dañ dañuy continuer ñaan rek ndax yàlla na ko sant yàlla na lig génn fa mu ne waaye tamit yàlla na ñëw ba combat bi continuer mais di profité di di nuyu lig ndax dem yóbbante nañu nuyoo jaarale ko ci Malick Thiandoum kon man it maa lay fay lig ci turu euh, Babacar a ngi lay fay ci turu Leewtoo bi yëpp di la ñaanal yàlla fam nga ne yàlla na fi génn ak jàmm di la fay nuyoo boobu yàlla na yàlla defal la jàmm kani nag kamit ki nga xam ne mooy muur itam kalaasaane waa kalaas na waagar ama ne na ay ngaaka lañ parce que la li am ñoom la parce que jaajaab ne nañ jële xaalis ba la waaw waaw loolu nag entre waxu mbër la ak ak ak ak adversaire am moom li ñu xam daal mooy bu leen ne ay ngaak lañ xëy na da leen di kalaas ak ñaax ak defi affaire loolu nag comme li ñuy wax rek tontu du forox ndax Jules Baldé mu jëli woon xaalis moom ku ne xam na ne làmmiñam damul ci poosam xam naa nag du du du nit koo xam ne nii moom di nga ko dégg ci ay bruit ay nangam sangam waaye nag saa yu waree wax moom di nga xam ne dina génn te li mu war a wax dina ko wax te xam naa ne kàddu googu moo di wax boo sàgganee moom tontu du forox comme niñ koy waxee wax dina ci am mais lépp ci cadre sport la rek parce que muy Modou muy Ama ay frère la ñu ñoo bokk Sénégal lig mi ko tëggit ci réew mi la dëkk kon daal li ñuy wax mooy rek yàlla na combat bi am te ñëpp fekk ko te taal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam que Babacar nag suñu jógee fi nga xam ne mooy record ñu dem fee si Leewtoo TV Leewtoo TV moom nañu demoon si euh, tudd Baboy ba wax na fa ay kàddu yu am solo diggante combat ki nga xam ne mooy Ama ak Modou Lo wax na daal ay kàddu daal Babacar ginnaaw bu mu tuddee doomam bi kooku di Baboy la mbarooti waa ndeysaan waa dafa ajoon nag di ajji du xam nga aj ngénte <laughs> Baboy da doon ajji <laughs> la mbarooti ñu koy nuyu di ko ziar moom bërki démb la woon samedi ca Pikine vraiment ah wax na tamit ci xew ba ak yooyu jël xale ba tuddee ko sëriñam Mouhamadul Habib Mbacke ñuy ñaan yàlla mu gudd fan te am barke bi turandoom am mais itam wax na ci diggante Ama ak Modou parce que dama ko laaj mu day wane ne moom li ko Falaye Balde defal ak waa kër Falaye Balde yaakaar naa ñi mu ñut Ama di takk ngem di bëre muy far keneen ku dul Ama loolu itam c'est normal parce que Pikine la dëkk waaye xëy na ñun soo gisee ñuy laaj question li ci li ñu ciy jublu mooy nit ñi la ñuy bëgg ñu xam parce que dañoo gisoon benn affinité bu doy waar bu mu am ak Modou Lo moo tax ñu dugal question boobu loolu seexam naa ne c'est très normal di wax ne rek moom wax na keroog lu bare bari ñëw na ci Pikine nag yu bare bari muy tamit nit koo xam ne nit ku ouvert la parce que booy waxtaan euh, booy waxtaan ak moom day wax li nekk ci moom ak mu gëm Babacar na si kàddu leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah may balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astane ne déjà bala ma chéri Khadija Diallo depuis Parcelles Assainies xam ne mooy As Seck chéri Khoudia Seck depuis Italie maa leen di nuyu ki nga xam ne mooy mbay say depuis la France di nuyu Abdou Gueye Baye Fallou Diamagan Papa Sita depuis les États-Unis aussi maa ngi koy nuyu di ki nga xam ne mooy Aïcha Faye madame Niang di nuyu waa Parcelles ak aussi waa Leewtoo aussi maa moom na solo Aïssa Faye maa ngi koy nuyu moom itam di nuyu. yaayu paate waaw yaayu paate comme ni ma koy waxee. waaw di nuyu tamit suma yaay euh, maire ba yaayu Aïssa ah yaay booy maa ngi lay ziar bu baax baax maire Sougou di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre mais di nuyu tamit ku mel ni Moussa Diouf maa baax waaw di nuyu yëpp di waa Sandaga xam nga waa marché Asalem du ma leen fàtte ki nga xam ne ni moom mooy Omar Omar Tawa maa ngi koy nuyu doomu ndeyu Saliou Khoule marché Asalem maa ngi bu baax a baax di nuyu tamit di kolobaan di jaaykatu téléphone maa ngi koy nuyu di nuyu tamit sama rak yi ne Colobane ñoom àll ak sama benn copain bu baax a baax di jaaykatu daal di ñëpp ñëpp nga xam ne daal ñu ngi ñuy suivre mais di nuyu di nuyu tamit encore une fois Saliou Khoule maa ngi lay nuyuwaat a baax di ñaanal Sénégal daal yàlla na fi yàlla def jàmm mi di nuyu ñoom tuuti Yaay ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu Mbacke Kebe waaw laay sob waaw waaw maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp daal képp kuy suivre Leewtoo daal ak foo mën ne rek di nuyu waa Maroc xam nga maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Chine Japon fu ne la ñuy suivre Arabie Saoudite ñoom Seydina Alioune Sarr ñaa ngi leen di nuyu di ñëpp jàmm te wax nekk daal Sénégal yàlla def jàmm. amin Babacar ba suba incha